ci juróom benn weer yi accéléré nañu processus immatriculation gaal yi nga xam ne mooy pêche artisanale bi ci juróom benn weer yi waaye it euh, moo wax leen ni ci juróom benn weer yi Sénégal lu musuta def mooy publier nañu la liste de tous les navires les 34 navires étrangers et les neuf navires les 34 navires sénégalais et les neuf navires sénégalais nga xam ne étrangers yi nga xam ne ñoom ñoo am autorisation pêcher dans les eaux sénégalaises keneen ku dul moom boo duggee ñu jàpp la arraisonné la loolu mosuñu ko def Sénégal kenn mosul publier la liste des navires kon kon buñ leen ne ci di juróom benn weer yi liggéeyuñu te jugéen ci juróom benn weer yi ñu def loo xam ne ñoom toog nañu ay décennies defuñu ko ci biir réew mi kon jàpp naa ni bu ñu waxee mool yi bu ñu waxee sénégalais yi parce que napp gi du mbirum mool yi kese ndax ñun sénégalais en tout cas ñun ñi xaw a nekk léegi cinquante bi ñuy nekk gone man Sébikotane gii laa duggee école saa bu ñëwaan week dañuy jël oto bi dem Kayaar peese fa coof ba doyal ñëw ci kër gi waaye tey kan moo fi lekk coof coof de tubaab bi lañ koy jox fii ci hôtel yi waaye jafe nañu nga boole ci ni benn facteur bu am solo la ci devise parce que dañuy exporter lu bëri waaye mu waroon doon un un moteur puissant d'industrialisation gis nga Saint-Louis ba Cap Skirring lépp ay usines de pêche la waroon doon fii jën waru fee jóge brut ñu koy génne ci réew mi dañ ko war a transformer fii def ko fii en pot doo koy génne ci réew mi te loolu moo nekk ci vision 2050 bu boobaa ngay créer de la valeur ajouté lii mooy programme bi ñi bëgg a wu ñun ci lii lañ leen wooye débat am na ku ma fi waxtaanee ñëwal ñu débat xam ngeen xam ngeen bi biñ ko nee ñëwal ñu débat dafa dem laqatu ñetti fan ñeenti fan ba ñu ne CNRA nee na d'accordul ci débat bi mu dëgg a génn ne d'accord naa débat ak Sonko loolu mooy mbirum buqat dëgg waaye moom xam na man xam naa yàlla xam na te nee na rapport mosu koo épinglé moo wax leen ni ñaari rapport nu mu tuuti tuuti benn bu benn bu inspection générale d'État ak beneen boo xam ne dossier 94 milliards yi ngeen doon dégg ñaari rapport yooyu épinglé na ko wax lam ca def moom xam na te dinañ ko publier ba Sénégalais gis ko seen bët dañuy wax ni sàcc bu dul raw jarul yàqi nelaw waaye bu ngeen gisee ma ne ko ñëwal ñu débat parce que ñun dañoo bëgg politique Sénégal ñu teg ko ci qualité xëy di wax waxu ñàkk fayda ñuy wax fële ndakaaru topp ci deru nit ñi di wax suba ngoon loolu du politique yéen su ngeen ñu toppee xam ngeen lu tax parce que ñoo leen njëkk a taxaw ne leen pétrole bi ne leen gaz bi ne leen lempo gi ne leen mbay mi wax ak yeneen ak yeneen loolu moo tax ngeen topp ñu moo tax Sénégal yi dañu war a exigeant ku dem ba di waxati politique rek nañ ko ne kaay nga wax ñu yow ci mbay mi walla ci càmm gi wala ci pêche bi kaay nga wax ñu sa gis-gis lan la waaye am na ci ñoo xam ne bés ba ne ñi nga wax te baccalauréat amuñu ko baccalauréat nañu publier seen CV baccalauréat amuñu ko kon bu ngeen gisee ñuy wax loolu ñun dañu bëgg politique bi ñu sellal ko politique mënul ñàkk de temps temps ñu xaw cee def tuuti xorom sax waaye saaga ak xasteeg ñoom seen bokkul ci politique ku amul xam-xam rek mooy xëy dem jël ay butéelu kenn xamul naan ba xamul fu mu ne ñëw taxaw di xasteeg di saaga waaye ku jàng ba xam doo defee noonu politique moo tax ñaareelu poñ bi ma bëgg a waxtaan ak yéen nag ñaareelu poñ bi ma bëgg waxtaan ak yéen loolu man la ak yéen mooy jeunesse bi ak ñun ñii dama koy tënk ci benn poñ mooy émigration clandestine maa ngi leen gërëm bu ngeen nee maa leen tere mbëkki gis ngeen yéen yéen vous êtes une jeunesse consciente une jeunesse moo tax ñu ngi leen di féliciter ndax bañee ne opposition coowul mbëkk bi am fi man maa dem doxantu ji wakaam fekk fa ci plage bi ay nit toog waxtaan ak ñoom ne leen gis ngeen réew waa réew ma ñoo koy defar suñu combat fii la ci Sénégal yàlla bu ko sooboon ñenn ñi ci ñun japonais la ñuy judd la ñuy nekk fa la ñuy juddoo ñi nekk vietnamien ñi nekk américain ñi nekk francais waaye yàlla moo ñu tànnal fii dafa am loo xam ne kenn yàlla du ci tàggu kenn mooy fan ngay juddoo ñan ñooy doon say mbokk ñan ñooy doon say parent loolu kenn mënu koo tànnal boppam kon bu la yàlla tànnalee loolu da nga ci war a am fierte pour man amul lu gën Sénégal réew noo ci toll Sénégal gi moom la gënal parce que yàlla moom ma ko tànnal yàlla moo ma ko tànnal moo tax jafe-jafe am si réew nga jël gaal daw loolu bokkul ci njàmbaar njàmbaar mooy jafe-jafe am na ci réew mi damay taxaw xeex ko ba jëlee fi jafe-jafe moo tax ñun on n'a pas le droit d'échouer ñun ñun on n'a pas le droit d'échouer parce que espoir bi sénégalais yi am ci ñun rawatina yéen ndaw ñi bu ñu échouer ñun sénégalais dootul gëm benn moroomu sénégalais abadan moo tax nag ma leen di garantir lenn du ñu échouer de dinañu réussir ba ngeen ne xalaat ñu woon ne lii mën na am incha allah moo tax yéen la jeunesse consciente bi toog ne xalaatatu leen di mbëkki ndax Sénégal lépp ngi fi suuf saa ngi nii ne yambalang suba ba léegi ñu ngi daw ci àll bi suuf gese la suuf su kenn bayul ñu am 700 kilomètres de code war mën a napp war mën a sàmm àll baa ngi ne nii ñu am ay ressources naturelles dafa am lu ñu diglante woon ak yéen mooy ressources naturelles yooyu tey nañ ko waaye ñun bu ñu yegg seet nañ fexe ba delloosi ko ci réew mi te ñu ngi si te dina dellu si de luy pétrole di gaz di zircon di phosphate di leen ak leneen bu ñu paree liggéey bi ñuy liggéey bu dee senegal ñett la ci amoon dina ci am juróom-ñeent wala fukk bu soobee yàlla kon senegal bu amee loolu lépp dellu si nag nee naa leen ci seen jàmbaar ñu ne Sénégal am na dirigeant yu mu war a am mooy am nañu xam-xam am nañu gis-gis bëgg nañu réew mi seen loxo set na waa lan la nit di jële ci gaal naan maa ngi génn nu fi jara daw bay daanu nu fi jara yàkkamti moo tax yéen taxu leen ma wax parce que yéen jël ngeen engagement ak ñun waaye à tout la jeunesse nag laa bëgg a wax on ne vous laissera pas prendre les pirogues pour sortir de ce pays duñ ko def xale bu am 17 ans 18 ans 20 ans tolloogoo fooy am bay ñàkk pression sociale bi ñuy wax warulaa tax a jël gaal di risquer sa bakkan bi parce que yow laay la première ressource du pays yow jeune bi kon yéen waxuma taxu leen maa wax waaye du ñu bàyyi mu continuer xale yi di jël gaal ñu naan chaque jour nangami bakkan rot na fi gis ngeen bi ñu mujjee am noonu ñu naan 34 personne la ñu fekk ci gaal gi su ma leen waroon image yi bi affaire bi ñëwee dama ne président dama woo président ne ko président defe naa lii dañ ko war a publier ba ndaw ñëpp gis ko parce que lii dara jaru ko ci àdduna mu ne ma mukk les images sont trop sensibles ma ne ko dañuy flouter image yi rek ñu wane gaal gi flouter image yi ba nit ñi gis corps yi ni ñu entassé nga war a xalaat ñooñu dans quelles condition de souffrance ils ont dû la vie amatooloo lekk amatooloo naan nekk sël ci gaal goo xam ne kenn xamul fu mu jëm lan moo ko fi jar réew nag su dee les autorités politiques sont des responsables loolu wal nu ma leen bëgg bëgg bëgg xam ngeen ni suñu diggante ñu ak yenn relation de vérité la nu ma leen bëgg bëgg bëgg bu ngeen ko bëggoon def damay wañ seen loxo ne leen du leen bàyyi ngeen def ko parce que vous avez vingt ans su ñu nee deux mille cinquante vous avez vingt ans man xaw ma ndax deux mille cinquante na ba fi fekk de xaw ma waaye am nañ njort ni li ëpp ci yéen dina leen fi fekk incha allah kon li ñu commencer jëmbët c'est pour vous c'est pas pour nous. yéen war a toog accompagner ñu moo tax ñu jël ay mesures fermes loolu bokk na suñu réalisation ci simois yi ndax bi caw bi commencé waatee ndax ñëpp xam nañ ni bu tàngoor gi duggee rek xale yi commencé politiciens yi nga xam ne lu xew ñu essayé ko politiser man de bi bi ñu nekkee opposition bi coowal immigration amee dem naa ci tefes waxtaan ak jeunes yi mais lan laa leen wax bu leen dem. toog leen ñu liggéey réew mi bu dee nañ ko waree baaxul ñu xeex ba jëlee fi ñi un politicien responsable noonu ngay doxale